amoon nañ ko dëxañ ko ci euh, benn euh, kayit kayit goo xamante ne moom moo di rapport bi di wax ci conseil constitutionnel nga xamante ne président Macky Sall moom daf ni daf leen di laaj ci euh, wàllu datu élection yi ba noppi si jébbal li nga xamante ne moom moo di projet d'amnistie bi li nga xamante ñii di waa assemblée nationale jébbal ko nu mu gën a gaawee diggante Macky Sall ki nga xamante ni moo di moo di Ismaïla Madior Fall di jiite euh, commission boobule ak Thiendella Fall di jiite euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa DGE loolu euh, le soleil ci loolu la ñëwaat Sud Quotidien ñoom tamit ci loi amnistie bi la ñu wax waa d'amnistie bi nag nee na assemblée euh, ñoom daanaka ñoom ñoo aaye jël mbir mi ndaxte li nga xamante ne moo fi euh, di ay ñaawteef euh, li nga xamante ne moo fi xewoon tamit di ay ay boom doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ñu ne loolu yëpp dañ koy dindi ci atu premier février deux mille vingt et ba vingt cinq février deux mille vingt quatre ci at mi ñu nekk ak tamit ñaawteef yi nga xamante ne bitim réew lañ ko defee def bitim réew lañ ko defee tamit daf ci bokk loolu assemblée nationale moo ko war a càmbar euh, tey jii ak lu ñuy woowee conférence euh, bi nga xamante ne conférence des euh, présidents l'info ñëwaat ci xët bu njëkk ci ni nga xamante ne moom moo di tànneef gu ñuy tànn datu 2 juin ci présidentielle yi di ñëw loolu nag ñu ne lii nga xamante ne moom moo xew Euh, dañ ko dàq ndaxte li lu mel ni gàmmu wala gàmmu wala euh, li nga xamante ne moom moo di euh, Touba magal gi wala sax Carême wala Ramadan maanaam korité gi yooyu yëpp moom moo tax ba nga xamante ne ñu tënku ci datu 2 juin bii di ñëw war nañ ko def euh, le 2 février wante 2 février antuwul loolu moo tax ñu jàpp date 2 juin euh, war ko euh, war ci dem ci ay élections loolu yëpp nag yëmbagul l'observateur waat tamit ci lu luwaawu amnistie bi nga xamante ne président ma Macky Sall jëbal na ko waa assemblée nationale ñu ne amnistie bi daanaka tiitaange rek moom moo ci nekk ndaxte dafay oyofal li nga xamante ne moom moo di jàpp gu ñu war jàpp nit ñi ba pare di leen tëj te lu dootul amati benn doole xanaa rek ñenn ñoo xamante ne ñoom ñoo ciy wax ñuy waa di waa cour pénal international ndaxte loi bi dafay tekkee rek ne ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñoom euh, amuñu euh, benn njëriñ ci luñ doon dund kenn joxu leen li nga xamante ne moom moo di moom moo di yoon. Euh, le quotidien ñëw tamit ci loi amnistie bi ba léegi mu ne Macky Sall mu ngi wane moom ak mbébétam lu mu bëgg a def ndaxte wax naa ko 5 février 2021 ba février 2024 lépp lu ci xew loo xamante ni nekkoon ay ñawteef euh, soo ci wàllu politique wala leneen dañu koy dindi ki nga xamante ni nag moom moo ci mën nara a bénéficier ci loi boobu de moo di Ousmane Sonko ndaxte loi bi ñu ko voté rek Ousmane Sonko mën nañ ko génne ci li di prison euh, ñi nga xamante ne ñoo di conférence des présidents dem ci commission des lois ñoom war nañ ko càmbar tey ji ci assemblée nationale Thierno Alassane Sall di ŋaññi loi euh, boobulee les échos tamit ñëwaat ci euh, loi boobu ak rapport bi nga xamante ni mooy tax ñu ëmb élection yi le 2 juin dem ci ginnaaw bi ñu ko fombee 25 février bi weesu ñu ne lépp nag conseil constitutionnel ñoom ñooy dogal ndax dinañ jàpp datu 2 juin waawal waa bu am déet euh, Macky Sall euh, mu ngi seetal deru Ousmane Sonko journal bi ñëwaat ci loolu lu yaatu yaatu mu ne euh, ndaxte suñu voté li nga xamante ni moo di loi bi Ousmane Sonko li ñu ko doon tuumaal yëpp dañu koy dindi ba mu set wecc L'As Quotidien aussi ñëwaat na ci suba gi ci ko bu njëkk wax ne am na juróomi article yoo xamante ne moom mooy dindi ñawte fii soxal loi amnistie bi waa assemblée nationale war ci euh, waa assemblée nationale war ci àddu Sonko ak Diomaye ñoom euh, mbir mi soxal na leen bu baax suñu voté rek ñoom mën nañu génn ci wet gi ñu ci gis Maître Sidiki ba mi nga xamante ne moom mu ngi wax ñi nga xamante ne ñooy waa conseil constitutionnel ñu jéem a appliqué date du 2 juin ndax moom moo arrangé ñëpp loolu Sidiki Kaba moo ko moo ko wax journal bés bi ñëwaat eh, samp ab laaj ni def nañu loi amnistie wante loi amnistie bi kan moom moo ci gën a gis boppam loolu ab laaj boo xamante ne bés bi le moom moo ko laaj eh, ñu ne ginnaaw bi nga xamante ni loi bi dina am ñu mu génnee kaso Ousmane Sonko moom dina eh, mën a dem. ci ay élection ndaxte ay droit am yi nga xamante ne dañ ko fankoon dina ci retrouver ay droit am Thierno Alassane Sall ñu ngi ciy gis moom mu ngi meer ba futt ndaxte ne loi bi président Macky Sall tegu ko fenn du dëggu du yoon waa oy ni tamit ñu ngi koy ŋàññ ndaxte loi bi eh, di faxas li nga xamante ni moo nekkoon ay rey ak eh, ay ñaawteef yu nga xamante amoon na fi loolu du dëgg yoon enquête ñëw ci li nga xamante ne eh, moom moo di loi amnistie bi ba léegi ñu ne Macky mu ne Macky Sall mu ngi euh, jox li ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko liberté am ndaxte. Uh, suñ ko voté rek mu Ousmane Sonko mën na ci génn ci fànn wi tamit ñu ngi gis ni Macky Sall mu ngi jëbal rapport euh, ñi nga xamante ni ñoo di conseil constitutionnel ak euh, benn bataaxal boo xamante ne moom la leen bind ngir ñu mën a def élection yi ci bésu 2 juin. bii di ñëw euh, Vox Populi aussi ñëwaat ci loi amnistie bi assemblée nationale ñu ne ñoom ñoo aaye ndaxte Macky Sall ginnaaw bi mu ko toggee ba pare euh, waa assemblée nationale ñoom ñoo war a yàq loi bi. ndaxte suñ ci sukkandikoo euh, Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñooñ la àndal ñoom liggéey nañ ci li ñu waroon liggéey ba noppi lu ci des rek mooy assemblée nationale def ci liggéeyam Thierno Alassane Sall di ko ŋàññi am ñoo xamante ni joxe nañ ci seen xalaat ne loi bi àndul ak dégg tey àndul ak dégg ëllëg ndaxte euh, lu mu fu mu jublu di yoon te baaxul ci ëllëgu Sénégal waaw Walf Quotidien ñëwaat tamit ci ba léegi ci loi amnistie bi ni yi mën na ci am yoon ndaxte. naam état Sénégal ak assemblée nationale mën nañu togg seen togg def li nga xamante ne moo di am na si bi wante CPI waa cour pénale internationale nekk ci laay ñoom mën nañ ci antu ne ànduñu ci tey loolu moo mën a nekk barage bi waa PDS ñoom euh, ñoom euh, nuñ ci toggee daal ci loi bi euh, ñoom amuñu ci nekkuñu ci benn yoon à as waa Amnesty International tamit ñoom ànduñu ci ci li nga xamante ne moom moo di loi amnistie bi waa Source A ci leneen lañu ñëw ginnaaw bi nga xamante ni wax nañu ci loi amnistie bi ne UCAD euh, dafa am yeneen façon yu yeneen doxalin yu bees yoo xamante ne mu ngi koy tëral ak ay étudiants am ñu ne étudiant bi léegi euh, dafay wane li nga xamante ni moo di carte d'identité am carte étudiant wane tamit euh, orale wu noonu la ko tuddee muy tur bu bees euh, wan ni moom étudiant la joxe firnde yëpp ngir ñu mën ko bàyyi mu mën a nekk ci université Euh, mën a wéyal jàng ndaxte lu ñu wax moom mooy université dañoo seetlu ni at yi weesu yëpp politique moom moo ko lal te ñoom bëggatuñ fa gis euh, li nga xamante ni moo di politique loolu waa suuf saa ci loolu lañ ñëwaat libération ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo di lycée Limamou Laye ak euh, formation professionnelle bi ñu leen joxoon ngir ñu tabax ay salle de classe ak ay équipement ak yeneen yu ni mel ñu ne onze milliards yoo xamante ne kenn xamul fu mu jaar loolu la libération bind def ko ci xëtam bu njëkk euh, nee na euh, surfacturation maanaam euh, app loo xamante ne weesu na li nga xamante ne moom moo di tabax bi lu mu doon jar <coughs> loolu la ñu nemmeeku waa Libération ñoom ñoo ko bind ñu ñëwaat rek ci journal bi li nga xamante moom loi amnistie bi président Macky Sall dépp jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di assemblée nationale ñoom ñu war ko càmbar ci nu mu gën a gaawee. ci conférence euh, des euh, président ñu jeexal ak li nga xamante ni moo di stade stade ñëwaat ci euh, ñëw ci Ligue des champions huitième de final tey jii Paris Saint-Germain ñu ne Paris dafa bëgg a confirmer Bayern moom mu ngi ci ay jafe-jafe ñu ne li nga xamante ni daal moom mooy coow li moom mooy Kylian Mbappé ndaxte xamuñu mbaxam moom nan lay taxawee. ci lu nga xamante ne moom moo di ligue champion bi ak ci match boobu ñu ngi ciy gis tamit Thomas Tuchel ak ñi nga xamante ne ñoo di waa na ñu ni ñoom euh, nekkuñu ci position bu baax loolu journal bi ci loolu la ñëwal ci loolu la ñëwaat bu baax a baax ci suba teel gi. Acha Diaby li moo gënoon fës ci li nga xamante ne moom moo di euh, xëtu njëkk yi ci yéenekaay yi tey ji mardi 5 mars 2024. Très bien Pape. Euh, jërëjëf mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam ñu ngi lay xaar nga yëg fekk suñu fii ci plateau bi n'est-ce léegi léegi lay doon. léegi léegi lay doon merci à Pape Malick Thiam ci xibaar yi rawatina nag lu ñeel ëttu yéenekaay yi dañuy woyal xibaar yi gën koo yaatal ak li nga xamante nii moo di la revue web léegi léegi rek bu bàkk bi noppee euh, ñu dikkaat ci plateau bi ma dalal Kajoor see